di leen ci siyaare bu baax te di leen baalu xaq te di leen baal di ñaan yàlla sama borom boole ñu jéggal di ñaan yàlla sama borom nangul nu jaamu yàlla yi ñuy def ci biir weer wu tedd wi yëpp te jéggal nañ suñu rëcc rëcc di rafetlu waat liggéey bu baax a baax rek suñu mbokk tedd yi nga xam ni di waa ànd taxawu daara ngir yàlla te na ñu ñëwoon fi am loo xam ne dañ ko doon def di ko la ci daara yi mu jëm ci loo xam ne ay ndimbal lay lañ koy mën a tudde waaye ngir jàppale daara te yàlla tax sëriñ naa Jaxate ak sëriñ Mustahin mel ni sëriñ Abdou Lahad Jaxate belal sëriñ Adama Jaxate ak mboole mbokk yu baax yu ñu àndal yépp mu nekk kuréel boo xam ne si ne kuréel bu yaatu la boo xam ne bañ ko tàmbalee war naa toll ci am at jamono bu ci nekk ñuy dajale seeni addiya ci weer wu ci nekk nu mën a toll rek baax na bu ko defee ñu xool ci daara yi donte daara yi moom bari na Tuubaa ñu dem ci yenn ci daara yi xool fa la nga xam ne moo fa jaadu ci ab liggéey wala la nga xam ne mën na leen koo jàppale lu mel ni ay mbaar ay wanag ak yeneen ak yeneen bu yàlla wéree weeru koor bi tàbb itam ñu xam ne loolu def gi lépp am na solo waaye weeru koor ku ne xam na ni daara yi dañ ci jàkkoonte ay dund yoo xam ne dund yu am solo lay doon te dund bi day gën a yaatu gën a bari ci weeru koor ni mu demee moo taxoon ñu dajale woon seeni seen addiya dajale ko ci lu mel ni ay saaku ceeb ak yeneen yi ci aju ay setalaak ñuy jàppoo ak ay basang yi nga xam ne mën nañ ci saa taxaw di jàng ak di naafila ñu dajale woon ci yu bare bare di ko wër la ci daara yi na tey jii ñu ñëw fii ci daara Serigne Mor Jaxate di daara Silku Jawaahir ci Touba Madiyana ñu rafetlu seen liggéey boobu bu baax a baax ni ñoo fi indi fi seen addi yu am solo wax dëgg yàlla bi ñu fiy ñëw it ñu fi ñoo jekki-jekki rek ñëw fi ndax ñoom suñu mbokk lañu yu tedd tedd bu baax a baax a baax waaye xëy na liggéey bi day door accès ci noonu waaye lu jiitu woon loolu itam def nañ ko ci daara yu bare bare bare ba accès fii ci accès ci ji la suñu borom wax li mu wax ci alxuraan ne na nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahaafizuun man yàlla ci waxu maa wàcc alxuraan te koy wattu mu mel ni kenn ku ci nekk itam ci alxuraan am na ci wàccuwaay boo xam ne si yow ci sa bopp bu ëllëgee na la ko laaj ndax li wax naa wa innahu la zikrun laka wa li qawmika wa sawfa ki nga xam ne mooy waajur yi dañ ko laaj ne lañ la demoon ak alxuraan ki nga xam ne moo koy jàng noonu ki nga xam ne moo koy jàngale noonu ndax téere bi moom kenn ku ci nekk rek am nga ci sa wàccuwaayu bopp boo xam ne si munta ñàkk nga xam ko ndax ab jullit saa bu dee julli lu gàtt kaa dina jàng faatiha ak aw saar waaye léeg-léeg ñi nga xam ne ñooy ànd di léeg-léeg ñi nga xam ne ñooy taxawu ci daara di nekk ci di jàngale ku ne xam na ne jàng alxuraan ak jàngale ko jamono bi léeg-léeg mu jànkonte ay jafe mu jànkonte ay ndax rawatina bu fekkee ne say dañoo bari ci wàllu dund beeg yi demee yooyu mu yooyu mu xaw ay jafe-jafe ak yi nga xam waaye na suñu borom li ñu wax léegi ci alxuraan rek nii moo koy wattul boppam jamono bu ci nekk am na ñoo xam yàlla mooy nàmm seeni xol dimbali leen boppam ba seeni jubala waaye ci alxuraan rek lay mën a jëm benn ñu di ko jàngale wala bu ñu ko jàngale wati ñu ciy taxaw taxawaayu am solo mel ni li waa ànd taxawu daara seen kuréel boobu euh, loolu lañ ci jublu ñoom itam yàlla ci boppam moo leen dimbali boppam jël seeni alal ak seeni xel ak seeni xol yëpp def ko ci taxawal lislaam taxawal daara tey loolu am am solo la ndax bu leen neexoon seen àll mën nañ ko jëli ko jëmale waate ci leneen wala tax yàlla yàlla wala tax ñu bañ koo ñu bañ koo def waaye lépp bu ñu ko def suñu borom moo leen dimbalil boppam te ñu ànd ko ak ñoom nag ànd bu rafet rafet ñuy sàkku ne ci kuréel googu rek képp koo xam ne yàlla dogal na ah yàlla yàlla dimbali na la nga gis kuréel gi te man caa bokk nga jëm caa bokk ndax li ñuy laaj yaakaar naa yi bariwul te loolu kenn ku ci nekk rek boo ci dee def lu mu néew néew rek la nga cee def bu ko xeeb te bés boo duggee ci biir bàmmeel dina la jariñ te jamono bi ñu nekkoon lu lu baax rek moo fi am solo lu baax rek mooy li fi am solo kon nag ñu ngi leen sant ci loolu ñoom bu baax a baax a baax a baax xëy na seenub liggéey sax dina gën a yaatu ndax ñoom seen yéene buñ sañoon mboolem fu daara alxuraan nekk ci biir réew mi danañ fa jël seen addiyee yónnee ko fa lañ fa war a def danañ ko fa def waaye xëy na kuréel gi day door a tàmbali euh, ñu di ci liggéey waaye bañ dalee tàmbali ba léegi di wax di yaay ñu ngi liggéey liggéey yu am am solo nag yoo xam ne si nag yaatu na lool nag doonte Tuubaa ci boppam nag moo bari ay daara lool ndax ni ko sëriñ bu sante woo sampe woon jàng alxuraan ak jàngale ko rek moo taxoon sëriñ bu samp ko waaye nag téewul nag wax dëgg yàlla fu baree baree bari bari seen i ma nga fay dem seen jàppale ma nga fay dem kon loolu dañ leen ci sant bu baax te di leen ci ñaanal di ci soññ suñu bopp di ci soññ ñëpp rek ndax yàlla ci waxu moo leen dimbali rek ñu ñu ñu ñu jël seen alal di ko di ko def ci lu mel noonu te bu leen neexoon ñu di ko def ci leneen lu bokkut ak loolu kon nag loolu ak cant rek lañ lañ ciy jëlee yàlla moom mooy mooy taxawal boppam alxuraan rek te taxawaaye nag dana yaatu lool dana bari lool nag donte jamono xat na donte jamono bari na ay yëngu itam waaye in fois muy sàkku ñu koy mokkal in fois muy sàkku ñu koy jàngale waaye une fois muy sàkku ñuy taxaw ci kuréel boobu di leen dimbali ndax euh, yaakaar naa yi maam Thierno Birahim bi nga xamee ne sëriñ bi jox na ko daara ji muy jàngale daa waxoon sëñ Mandoumbe Mbàkke Xabaan ak si maam Cheikh Ibrahima Fall la xam ne mooy dund dongee ñoom ñu di ko sàkku di ko yót borom Daaru Muxti te loolu léegi mooy am ba léegi rek waaw kon nag loolu seen kuréel ba ñu ngi leen ci sant bu baax di leen ci di leen ci ñaanal di jéggal ne ci kàddu yu baax ba xawee gudd waaye lépp bëgg njariñ ak bëgg ak yokkute lañ ci jublu ñu ngi leen ñaanal baax yàlla defal leen ci liggéey bi ndam defal leen ci barke defal leen ci ba lépp luñ ci séenu rek bon defal ñu kawe suñ jor barke Sëriñ Tuubaa barke alxuraan asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi ànd taxaw daara ñu ngi leen di nuyu baax leen siyaara nuyu mbokk yi nga xam ne jaaroon nañ ci ci suba ba léegi mu tàmbalee ko Sëriñ Xaadim Fay Euh, Cheikh Abdoulahat euh, Jaxate ak sëñ Silla ak euh, sëñ Abo Jaxate ak sëriñ Xuma ak sëriñ Maseer sëñ sëñ Maseer Ja ak sëriñ Cheikh Cheikh May Sànqe ak mboolem mbokk yi nga xam ni ñoom lañu àndaloon liggéey bi ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm su ko defee itam noonu ko mbokk yi waxee rek noonu ak lañ koy continuer wax mooy kuréel gi kuréel ko ànd taxawu daara la ngir yàlla li ko li ko tax a jóg tamit mooy euh, jaamu yàlla ci daara yi maanaam nit ñoo xam ne dañoo fas yéene dajaloo nekk benn li ñu am muy ci seen ñaq ñu koy génne moonte 1000 francs la donte 2000 la donte 5000 la sax am na ñoo xam ne sax dañuy yëkkati sax 50 000 jox ko ci kuréel gi waaye nu mën a toll rek su weer wi dee ñu comptabiliser ko xool nu mu toll suñ gisee ni mën naa taxaw daara ñu dem taxaw ci jenn daara suñ gisee ni tamit mënu ko ñu xaar ba man ñetti weer wala ñaari weer ñu door a dem xool daara joo xam ne yaayoon na dara muy basang wala ay ni ñu ko waxee rek mooy muy muy ay ay dama ne basang sax waaye dama ne li jëm ci wàllu mbaar ak ay wanag wala ay fonds yu mel noonu ñu ngi ciy toppatoo ay daara yu am solo su ko defee nag loolu rek mooy kuréel gi kuréel gi nag ñu ngi ko sos ci euh, le 29 décembre 2020 Eh, àndoon ceeg ku ñu wax sëñ Modou Ablaye Lo mooy Mamour bi nga xam ne moo ci njëkk dugg si ci kuréel gi ginnaaw bi ñu ko sosee waaye nag suñu borom daf koo jël mu jiituñu ci kërug dëgg ñu koy ñaanal bu baax a baax suñu borom yokk ay leeram fa mu tëdd te jéggal ko yëpp bépp rëcc-rëccam waaye di ko ñaanal lépp li ñu liggéey ci antaxu daa tamit yàlla suñu borom di ko ci tibbal mu koy fekk ci kërug dëggam ci biir barsàq kon ñoo ngi koy fàttaliku baax moom di ko ñaanal baax waaye di sant suñu Abo Jaxate mi nga ne moo moo moo moo tëj kàddu yi léegi ci ànd taxawu di ci woo nag mbokk ki jullit yëpp bàyyiwuñ kenn képp koo xam ne ab jullit nga tey seetaan vidéo bi ñu def ñoo ngi lay woo ci liggéey bi nga ñëw dugal ci sa loxo ndax liggéey bi kat du benn liggéey bu dul liggéey bu jaamu yàlla rek jubluwuñ ci du dul jaamu yàlla kon nu ngi woo mbokki jullit yëpp ñu ñëw tàbbisi ci eh, jox ci seen i ndax ñi ngi koy defal mate na ko muy waa daara jafe-jafe bari na lool ci daara te itam jàppale gi néew na loolu rek tax kuréel gi sosu nga xam ne ren ji social bi ñu def tamit li ñu jublu mooy dañoo gis ni daara yu baree bari dund bi demewu fa noona ba noppi tamit bari na xale yoo xam ne duñu woor te amuñu fenn fu ñu mën a yalwaane ji te pour ñu jàppale leen ngir ñu mën a dund faaw rek ñu mën a dajale ab dund jóbbu leen ndax euh, guddi gi tamit mënoo di yalwaani yenn heure yi nit ñi di reer kon faaw rek social boobu mënut a ñàkk ci daara yi bu ñu sañoon nag eh, li ñu joxe ndaw na ci ñu lool bu ñu sañoon joxe loo xam ni ay ton yi tonnes la ñuy séddale te suñu objectif mooy bu déwénee bu ñu fi yàlla ba ak jàmm bañ mën koo defaat ñu romb fi ñu defoon donte dañoo tàmbale woon ci bërikoob ceeb ak yi ci aju mooy basang yaag satale bëgg nañ nag bu déwénee daal ju junni ñu mën faa yóbbu juróomi bërigo ceeb wala wala wala fukki bërigo waaw loolu la ñuy loolu loolu loolu la ñuy ñaan su ko defee nag ñi ngi ci tàllal loxo mboole mboole mbokk yëpp rek mooy membre yi nga xam ne ñu ngi ci biir Ande Taxawu ñu ngi leen ci soññewaat képp koo xam ne yaa ci biir te a jël sa mbokk dugal ko ci biir Ande Taxawu Daara ñu ngi lay ñaan def loolu ndax loolu rek bokk na ci li yaatal liggéey bi maanaam képp koo xam ni am nga sa mbokk moo xam ne gis nga ni boo ko waxee kuréel gi dana ci nangoo dugal loxoom wax ko ko mu dugal ci loxoom ndax loolu rek la soxla sa nu mu gën a yaatu rek gënal ñu ndax bëgg nañ mu daj ci réew mi fépp bëgg ñu mu yem ci tuuba ak ay Ndakaaru euh, Thiès ak ñi ci aju waaye dañoo bëgg mu daj ci réew mi fépp ba ku nekk man cee gis sa bopp ci ñi nga xam ne ñoo ñoo ko tax a jóg muy muy muy muy daara yi kon noo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di gërëm tamit membres yi nga xam ne ñu ngi ci biir an taxaw daara ñoom ñëpp te nga xam ne ku ci ne yaa ngi jël saw ñàq di ko ci dugal euh, kenn mënu leen a fay ndax loolu rek dafa dafa dafa rafet daal dafa rafet lool maanaam yëg ni xale yi tumuranke nañ nga nangoo yëkkati saw di ko joxe ngir ñoom loolu dara gën ko rafet kon noonu ngi leen ci sant bu baax di leen ci gërëm waaye di ñaan suñu borom tamit lépp lu ñuy def euh, bépp yëngu bu ñu nekk rek suñu borom yokk leen ca bu baax a baax a baax waaye fulal leen li ñuy joxe bañ man gën di ko joxe ndax fi ñu dugal wóor na te wér na te it leer na kon noo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di ñaan weeru koor yu ñu nekk suñu borom defal ñu kooru jàmm ci barke Xaadimul Mustafa ba nga xam ni danañ ko woor ci niñ ko bëggee te liñ ci sàkku lépp suñu borom defal ñu ko te bàyyi ñu fi lu yàgg-yàgg tamit bañ man di ko woor man di yëkkati suñu alal tamit di ko dox di ko di ko joxe ci daara yi ndax loolu rek mooy mooy solo si luñ mënti def lépp baax na lépp baax na waaye yëkkati sa alal di ko def ci daara dafa nekk loo xam ni kenn mënut tax xayma maanaam dayo bi ak ak ak ak ak ak ji ci nekk kon bu kenn xeeb bu kenn xeeb bu kenn yéem tamit dañuy wax ne kiy joxe junni ak kiy joxe fukki junni ak kiy joxe ñaar téeméer rek moo yem ci ñun ndax li ñuy laaj ñun waxuñu ne na ko nit def ngir ñun dañu wax ni ko def na ko def ngir yàlla li ñu laaj nag loolu rek lañu jublu def ngir yàlla rek lu waaye def na ko def ngir yàlla ñun ñi ci yëngu tamit di ci sonn li ñu def lépp bëgguñ ci ku ñu sant bëgguñ ci ku ñu gërëm waaye nañu ko def ngir yàlla ak ngir yàlla ak jëmmi sëriñ bi nga xam ne moo ñu boole te yaakaar naa bu ñuy football tamit ngir ñu dimbalante ngir ñu yërëmante ngir ñu jàppalante rek moo taxoon suñ bi woote ci dëkk bi ngir ngir ñu dëkk fi kon nag moo ñu fi boole ak ndimbal ndimbal nag dara jiitu ci li ñuy def ni mooy social kon noo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp gudd na waaye li ñu bëgg wax rek mooy ñu gën a bàyyiwaat xel daal li ñu tax jóg mooy jaamu yàlla te ko ci fi nga xam ne jàpp nañ su fa duggee yàlla ko nangu muy ci daara yi kon noo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp bàyyiwuñ kenn suñ mosaxeen jaxate ci liggéey bi gis nañ ko rafet na suñu Adama Jaxate kasaalika soxna lay Fatma mi yor secrétaire bi gis nañ liggéeyam rafet na maanaam ku mel ni Cheikh Abdoulaye Ahmad saa bu ñu lii la ñu soxla du ñu xaar leen ba suba xaar leen ginnaaw suba ñu door a génne waaye suñ ko soxlaa rek ci moment bi ñu ko soxlaa ci la koy génnee kon lañ koy dénk tamit mooy trésorier bi ma ngi cee def kéem kàttanam ba di ko sàmm na nga a sàmmee ma ngi sant soxna ne ba di ànd euh, taxaw daara moom it gis nañ taxawaay bi xañ na am na yoo xam ne fisul ci ko waaye ci suuf ñoo ngi liggéey liggéey yu am solo yoo xam ne ñu ngi koy def kon noo ngi sant ñëpp bàyyiwuñ kenn di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu